leen di nuyu di leen ziar ci nuyu bi Serigne Cheikh Ndigal Sène jaare na ko ci njabootam bii waaye tamit jaare na ko ci képp koo xamante ne tey jii Cheikh taxawal ko ci diwaan. nuyu jaboot bi di nuyu ak ziar mbooloom taalibe yi ñu ngi nuyu mbooloom kilifa diine ak kilifa aada yi jotaay ñu ngi dox doxut seen seen ndigal seen ñu amaana jotaay yi su doon am dafa doon am ay ministre bari ñu doon tegtal bi ñëw fi waaye complot yi bee tax ci fan yii weesu amagul amagul ay ministre gouvernement dafa amul woon ba nii ñu nekk nii amul loolu moo tax tey jii pour ñu yónnee woon fi ministre yi daan faral di bu xawoon jafe lool ay na fàttewul la nga xamante ni moo nekk seen diggante moo nekkoon seen diggante te nekk ci ba léegi tey jii nag buñ fi ñëwee dana fekk yow lii ni kon ni xam naa ne sànq. waaw ban problème la exactement. ma ne bi ñu jëlee kàddu. yéen si wax na ci bu baax. ndax bi may jógee gouvernement am na chef de service régionaux yu bari yu ànd ak man mm. préfecture am na délégation bu ko jógee sous préfecture tamit am na délégation bu ñëw ànd ak amoon ni kon booy jaay waaye moom démb si wax na ci délégation boobu ànd ak man fii ci jotaay

beneen addina. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. muy bis bu mag. waaye tamit di bësu fàttali di bësu seetal suñu toogaay waaye tamit di bës boo xamante ni suñu xel yëpp day dellu si waat comme ni ko sëriñ Cheikh di gën seen defee ci lii nga xamante ni mooy jikko ak ni doomi aadama waree dund ci àddina day bëri ay image ndax mi ngi defar mi ngi defar jikko suñu wëlbati koo tey jii suñu borom wëlbati ku tàgg yonent bi yàlla yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ci jikko ñu ñëw fii ci ëtt bi nga xamante ni jàngale diine jàngale lislaam xam loolu muy yàlla xam ci yow moom moo la tegu defe naa loolu su fekkente ni seen cheikh li gën seen daf nekk yar ci njabootam te njaboot gi boolewu ci xadewu ci góor ak jigéen ndax ñun ñëpp leen ci boole yamale waaye tey mu am ñoo xamante ne dañ ko taxawal ci diwaan yi kon yaakaar naa ni ñu ngi bàyyi ci tool ci seedeel ko li nga xamante ni jot na ko liggéey ba léegi waaye suñu sukkandikoo ci ñi fi jël carte sànq. 18 2 heures. di sëñ Abdoulaye Bichir waaye tamit sëñ Sila defe naa ne ñoom wax nañu li nga xamante ni mooy ci gën a am ci liggéey li nga xamante ni mi ngi ci ak njabootam kon bu ñu mën lu jaajëfal ko waaye tamit ñaanal ko mu yàgg lool ci fan ndax nit daal suy yëngu ci lu rafet yéene ko doomu aadama yëpp fas yéene cee am ndam naa ñun bu fekkente ne dañ fi teewal buur suñu loolu mooy jàppale ko taxaw ko ndax ku defar jikko pour man defar nga état lépp luy émergence wala développement yaa ngi fanko wara commencé nga ko doore ndax bu jikko baaxul dara du baax su jikko baaxee ci la jëf di baax ci la xalaat di baax ci la leneen ak leneen di baax kon su fekkente ni ñëw nañu fii ci ëtt bi gis ko fi gis fi yàlla gis fi ñu tegu ci yoon duñ mën lu dul rafetlu ko te li ci gën a am solo da ngeen fonk liggéey te loolu dañ koy gis saa su nekk li hmm? ngeen di jëm ci mbay mi li ngeen di jëm ci hmm. yeneen parc fii ci région bi waaye yow boog ci région bi ndax même ci yeneen région yi sax. moom lu set waxu ci dara bu rafet la ngeen xamante ni yéen a koy def kon sëriñ bi moom lay jaajëfal bu baax a baax waaye tamit di jaajëfal sa njaboot yi nga xamante ni ñoom lañu nekkal ci région bi ndax jikko ju rafet la ñu nekkal ñun fii te it jàmm rek lañu gis ci ñoom. fi ñu toll nii ñu ngi waajal ay élection te eh, ginnaaw nag dañ koy waajal ak li nga xamante ni jotoon nañ ko fi dund ci fan yu weesu ñaan waaye tamit tàllal suñu loxo sëriñ bi nga ñaan ba jàmm rek am Sénégal jàmm am région de Fatick waaye tamit jàmm am lépp loo xamante ni état bi mu ciy sóobu ndax waxuma partenaire état waaye sànq ci sa ama kàddu njëkk naa wax li nga xamoon moom wëllëre bi am ak son excellence monsieur le président de te wax dëgg saa su bis yi amee moom ci da ci taxaw taxawaay bu am solo kon yaakaar naa ne suy fi ñëwee andil la nuyu andil la ziyaara andil la ndokkeelam te suñu ñu jël li nga xamante mooy li mu wax ñoom ñooy ñaanal bu baax di ñaanal seen njaboot yi di ñaanal ñu yàlla ci yàlla jërëjëf